samedi la ñu ko teg loxo fale ca Koungkané université Cheikh Anta bu Ndakaaru tey la ñu tàmbali ñàkk étudiants yi jëm ci xeex feebar bi di mbas mi eh, juróom ñeent fukki junniy dose de Johnson and Johnson la ñu leen eh, la leen ministère de la santé jox eh, ndajeem monitoring yi nguur gi doon amal digganteem ak jàngalekat yi niki tey ji ci ngoon lañ koy tàmbaliwaat juróom benn ministère daañu fa teew jàngalekat yi ne ñu ngi di nak di xaar ba xam la cay tukkee biti réew daañu ci ànd ak Georges Déthié Diop tàggat yaram Youssouf Bodian gis-gis ak RFM la ñuy jeexalee di bés bu ñu jagleel habitat maanaam dëkkuwaay euh, mu yemok nak taax di màbb ci euh, ci kaw nit ñi ci ci njeexintalu xibaar yi lay doon Abdoulaye Diop moo fare ci machine yi. ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak rajo Futur Media xibaar yi ñu mbirum Cheikh Niass. di ki nga xamante ni dañu ko tegoon loxo fa mu ñàkk bakkanam autopsie bi ñu njëkk def ci ayubés yi weesu lañ ca wax mu di moor naturel maanaam daal àppama jotoon loolee nag njaboot yi weddi ko ne euh, duñ ca duñ ca dal ba tax na ñuy waajal contre expertise ña nga woon sax hôpital Le Dantec tey ji ci suba soxna Cheikh Niass ci boppam France la bàyyeekoo yegg si na démb Ndakaaru Ana soxna dem ci yàlla Cheikh Niass ni ki démb ci guddi la yegg si euh, ndakaaru ànd ak ay euh, doomam waaye itam ñeneen ñi bokk ci euh, njaboot gi ci xibaar yi ñu taataan mu ngi subak léegi ci hôpital Aristide la Dantec ngir teewee fa contre autopsie ndax ñoom dañoo weddi li tëkkee ci autopsie bi ñu njëkk a def ci semaine bi lay weesu te ñu wax ne moom Cheikh Niass hyperglycémie moom moo ko daal di faat maanaam mort naturelle njabootam xelam dafa tey ndax dañoo ñaw njortu ne Mom Cheikh Niass bo moytul dañ ko fitnal ndax dañ ko mujjé internet ci l'hôpital gannaaw bi mu amé ap jappanté ak benn policier ci bi lé nak administration pénitentiaire Momitam itam daal dina ci yëkëti kàddu muy léral ne ngóor si tollu ci fanweeri at ak juroom ñent faatuwul ci Cap Manuel wayé ci urgence bu hôpital Aristide Le Dantec ci pavillon spécial ba bu ñu sukkandikoo ba ci xibaar yi ñu taataan tey ji ci suba Cheikh Niass ci fan ñu dëgmal dinañ ko jébbal boromam fii ci Ndakaaru ca Cambérène ci wetu waajuram bu góor. Dana Rocha maa ngi leen ko junj ci boppu xibaar yi Guy Marius Sagna ci kanamu procureur de la République moom activiste bi sànq la bàyyeekoo dikk. Eh, ñu yóbbu ko ca tribunal bu ndakaaru samdi gi weesu lanu ko tegoon loxo ca kunkaane nekk ci région bu Kolda eh, gannaaw si ci lañ ko andi fii ci ndakaaru ni ki démb moom Guy Marius Sagna nag eh, dafa demoon ngir jàppale askanu Pakour yi doon manifester ne daal seen suuf si dootuñu nangu ñu ñëw di ko caxat caxatee daañu si dellu siwaat ci sunu yeneen jotaayu xibaar ba xam nu muy mujjeek procureur de la république ñu wax ci bâtiment yi nga xamante ni jamono ji ñu ngi màbb yemook ñuy màggal tey euh, journée de l'habitat loolu nag tax na ñu seq waxtaan ak euh, inspecteur général des bâtiments euh, laaj ko ci rôle bi nga xamante ni la inspecteur général bâtiment am ci fekkee ne taax daal dafay waaj a mune. mu ne Euh, bu ko defee ba pare rapport technique lay def daal di ko jébbal autorités yi waaye munul mukk ko génnee ay nit yoo nga xamante ni dañoo occupé batiment buy waaj a màbb Boubacar euh, Dañoko lay wuyoo kàddu yu mu dénk Makumba Bey ci téléphone bi. li ñuy tabax ci Sénégal yow mi xam nga ni bari na. donc euh, benn service contrôle munul nekk di. motal contrôle contrôle lu bâtiment yépp li nekk ci Sénégal li ñu war a def aussi mooy sénégalais yi xam ne que booy wàllum tabax du wàllum caaxaan wala affaire la boo xam ne ñi ko xam ñoo ko war a def du boo jëlee rek nga jël sa génnee rek nga jël sa benn maçon jox ko defal say brique ñu teg tegale ay brique ale ay waa ñu kule dal bi du mhm. noonu wàllu tabax dafa am yoon bu mu war a jaar yoon yooyu nag buñ ko respecté wul maar détail yi yi mel nii mën naa am. bu fekkee bâtiment yu màggat yi est-ce que yéen am ngeen doole yi xool bâtiment ba xam ni lii nit waratu ca dëkk ngeen génn ñu fa nekk. ñun suñu wàll ci wàll boobu. mooy bu ñu gisee bâtiment boo xam ne bâtiment bi wóorul. wala euh, ñi ñi dëkk ci benn gox. ñu def plainte wax ni ñu ñëw siñaale ñu ni que batiment bi wóorul ñun dañuy dem ci batiment boobu inspecté ko léeg-léeg lu bëri sax dañuy ànd ak préfet lu léeg ñu ànd ak euh, direction de la protection civile ñu dem saytu batiment boobu buñ ko seetoo ba pare dañuy def rapport technique boo xam ne dañuy wax ni batiment bii dañ ko war a defar léegi léegi wala batiment bii euh, dem na yàqu na yàqu boo xam ne batiment bi dañ ko war a daane si boobaa dañuy def rapport boobu jox ko ñoo xam ne ñooy collectivité locale yi su boobaa nag mairie bi mooy topp faire boobu ba nga xam ne ñu def ak de péril wax ni que propriétaire bâtiment bi war naa toj bâtiment bi génnee ni nit ñi fa nekk. mu nekkoon Boubacar Dagnoko di inspecteur général des bâtiments kàddu yu mu dénk kii di Macoumba Beye ñaar fukk ñaari sénégalais yi nga xamante ne dañu leen attaqué woon ci corridor Dakar Bamako ay uh, defkatu ñaawteef ñoo daloon seen kaw boobaak léegi ayu bés a ngi nii ñu ngi toog uh, ba tey Mali di xaar ndaxte gisuñu ne ñu gisuñu benn autorité uh, bu wax ci seen mbir. attaque boobu boobule sax taxoon na ba ñu faat lu toll ci juróomi gendarme yu fekk ba yu doomu Mali euh, fukk ak benn camionneur sénégalais yooyu ànd ak euh, fukk ak benn nit yi nga xamante ni ñoo leen doon euh, gunge ba léegi ña nga bloqué ca wetu kat yi amuñu benn assistance bu bàyyee ko ci nguur gi kii di Balla Bari moo wax ci seen i kàddu kàddu yu mu denk ba Babacar Fall. ñun li ñu bëgg a xam mooy ñun xanaa état Sénégal moom xanaa xamul chauffeur parce que ñun depuis une semaine. ñu ngi ñu oto yi. nangu suñu xaalis nangu suñuy téléphone depuis boobu ba léegi ñu ngi Mali ba tey pour ga pour borom marchandise bi mën a ñëw jël marchandise am jox ñu suñuy xotti oto ba tey mënuñu cee jot te ça fait une semaine mënuñoo jot suñuy oto yu yàqu wàcce wuñ marchandise bi ñibbi si wunu te état Sénégal amul benn autorité bu nu woo waaw man nag ma doon laaj ndax moom chauffeur Sénégal moom état da koo reconnaître wala nu mu demee noonu ñun de mbir mi jaaxal nañu waaw ñu ngi ñaan autorité yi bu fekkee dégg nañ suñuy wax ñu dimbali ñu te yàlla rek tax bu fekkente ne mën nañ ñoo jëlee Mali sax ñu bañ a ñëw Mali moo nu gënal. mu ngoog euh, yuuxub wàllu bàyyeekoo ci doomu Sénégal yooyu bloqué ca Mali ci wetu Kati euh, Balla Bari moo yore seen kàddu ay semaine a ngi nii ñu attaqué woon seen convoi boobaak léegi ñu nga cang foofu la ci wetu Kati ba tax ñuy sàkku ndimbalu autorité yi ngir mën a ñibbisiwaat fii ci mim réew di Sénégal. kurel gi nga xamanteni mo organisation société civile yi ci walum jamm ci Casamance ñom nak euh, femu mu lañu taxawé lañu bëgg moy gëna bolé askan bi ci bi nga xamanteni ñu ngi koy menace ci sous région bi rawatina ci pexep non di terroriste lola tax armée bi ak euh, autorité ya fa nek euh, dal autorité yi daal di Nedal, askan wi né dal pexe bu la bëgg plateforme wala initiative bu bobu lé ñu ngi ko te démb ci kanamu askan wa Henri Ndekki mooy coordinateur collectif bi ëmb organisation société civile yi ba nekk fële ca Casamance te yëngatu ci wàllum jàmm nga foofu le ñu teewlu ay kàddoom ci micro Lamine Ba. souvent ñun population dañu foog ne ñun amuñu suñu wàll mais tey c'était pour ñu woon nit ñi que ñun en tant que population am nañu suñu wàll pour pour yokk.

mënoo mënoo dugal sa investissement ci dëkk bu nga xam ne amul karange donc boo naree indi entreprise mais il faut mu am karange bu amulee karange mënoo fa dugal xaalis donc moo tax ñun ñu fa nekk euh, suñu lu ñu wax ne sécurité collaborative tey ñëw na ci heure bu nga xam ne ñëpp ñoo ko soxla moo tax ñu ne balaa ñu koy garder pour ñun de liggéey nañu région Sédhiou pratiquement ci commune Goudomp bëgg nañu tamit dem nañu Kolda dem nañu Sédhiou moo tax ñu ñëw fi tey pour wecc waxtaan ak suñu naataango yi nga xam ne ñooy organisation civile ONG internationale ak ak yeneen chef de chef de programme état pour wan leen lii lii mooy suñu xalaat bu bees te foo nañu bu buñ ko jëfee mën na indi kaaraange ci. mu ngoog euh, service ministère euh, du commerce euh, weer a ngi nii daanaka ñu nekk ci terrain bi ngir rek ñu jëfee arrêté bi nga xamante ni ci la ñu jaaree ngir fixer prix njëgu yenn ñam yi. loolaa tax euh, jot nañu nangu lu toll ci juróom-ñaar fukki junniy tonu suukar euh, fanweeri lu ëpp fanweeri junni ay litre diwlin at wala boog euh, ak it sax lu jege ñaar fukki junniy tonu ceeb ba ci sax ay butéelu gaz nangu nañ ko ci marché bi loolee nag gannaaw weer wi nga xamante ni def nañu ko ci terrain bi ci loolu sax directeur commerce daal di xamle ne amul benn pénurie maanaam daal amul benn ñam bu ñu nemmeeku ne ñàkk na fii ci marché bi ñu teewlu kàddu yi Oumar sànq la ko dénk

alors euh, ci région Sénégal la hein. euh, pendant un mois manam dem nañu contrôler 8542 commerçants 8542 commerçants yoy contrôlé Madame contrôler 1561 yo respecté prix bi ñu leen jàppee teg nañ leen ay daan daan yi bi leen tegee amande yi ko calculé mat na 27 millions 585 mille francs CFA ñu versé ko trésor public. loolu mooy sanction yi nga xam ne moom la ñu teg ci commerçant yi nga xam ne ni moom ñu jàpp ñu toll ci 1561. demuñ rek ci sanctionné la maanaam fay loolu xaalis buñ la jàppee dañuy saisir marchandise saisie marchandise yooyu nag moom lañ leen wax ni ko suukar bi saisir nañ ci lu toll nu 77 tonnes 650 dawlin bi saisir nañ pratiquement lu toll ni 32 220 litres de huile dawlin ceeb bi saisir nañ lu toll ni 19 tonnes 950 butéelu gaz yi saisir nañ ci lu mat 889 butéel yi nga xam ne ni moom la ñu saisir. loolu yëpp aussi dañ ci boole ni que am nañu système de réclamation maanaam képp consommateur boo xam ne ni dem nga jënd njëg boo xam ne ni da nga ne kii borom boutique bi respecté wu ko nga woote ci ñun ñu dem ñëw fa ñu saafara problème bi. te loolu gis nañ ni que pratiquement réclamation yi ñu jotoon yëpp ci services régionaux yi yëpp satisfaire nañ ko. mu nekkoon Omar Diallo di directeur commerce intérieur fukki simili ñaar moo bootu ci benn waxtu. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. ndaje monitoring yi nguur gi don amal ak sandikaayu jàngalekat yi ni ki tayji ci ngon lañu koy tambali wat gannaaw bañu ko dakkandee ay wérangi ni ngi benn ministère nak daanu fa teew ne ñu ngi nekk di xaar lay tuké ci ndaje momulé Amidou Diédhiou moy coordinateur bu bes bu SELS ñu tewlu ko kaddu yu mu denk Salimata Aw monitoring moy syndicat yi tok gouvernement Sénégal tok ñu saytu ñu jangat lan lañu xatimone lan lañu signé deux mille dix huit ci accord bi bëri na fa ay points yu ñu ci accord bi bëri na fa yoo xam ne naam nguur gi jéem na ko jëfee waaye it bëri na yoo xam ne jëfewuñu ko moo tax moo tax syndicat yi jàpp ni waroon nañu toog lu yàgg lu yàgg ñu xoolaat li ci biir protocole bi lan la ñu jëfee ak lan la ñu jëfeewul tey nag nguur gi woote na pour ñun tey nag dina doon bësum boo xam ne. dina permettre dialogue digga diggante gouvernement Sénégal ak organisation syndicale dialogue bobu ñu mën ko tambali té du taxawat té dialogue bi dañ koy tambalé ci ñaar ñu waxtané ci bu ñëk ci lo xamné signé nañ ko ba paré té jëfé bi xawna xawna soxé naa bi nak bu ñu tamee tàmbali loolu ba xam fan lañ ci tollu bañ ci andi andi ci andi ci saafara am question yu bees di fi taxawat mo xam question des décisionnaires moi, j'ai une question euh, contenu d'enseignement ak y ak une question donc il une pàcc mu nekkoon Amidou Diédhiou di secretaire général bu SELS ñu fàttali leen que ni ki tey ji ci ngoon la ndaje monitoring yi diggante nguur geek jàngalekat yi di uh, tàmbaliwaat bu ñeenti waxtu jotee uh, lay doon ñu dem ca université Cheikh Anta bu Ndakaaru nga xamante ni kilifa ya fa nekk ñoom nag dañoo taxaw temm ngir xoolaat université ba gën a dëgër kaara dëgëral kaaraange ga loola tax uh, ñu daal di jël dogal enrôler étudiants yëpp jaaree ko ci seen i carte su ko defee ñu xam kanay kan waaye nag euh, mbir ma na muy demee daal euh, yéex na ndaxte étudiants yi bareeguñu am na ñenn ci ñoom sax ñu nga xamante ni euh, mbir mi dafa am ay problème mu coordination ñangaloo enrôlement boobu nag bëgguñu yey yàbbi ci mbir mi umu kalsum li étudiante bi nekkee ca faculté de droits ca daara ju kawe université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñu fekk ko ca buntu campus social ba mu yor carte étudiantam ca loxoom moom mi lee identifié nañ ko ba noppi ci fase enrôlement bi nga xamante ni li ko tax a jug rek mooy gën a ñoŋal wàllum kaaraange gi ci université bi wante jafe na lool ngir ñu jege ko. maintenant il faut vous occuper de bi ngay présenté booy ñëwaat da ngay indaale carte bi ñu enrôler léegi ci université bi ñu ngi ci buntu école supérieure polytechnique fii nag phase enrôlement bi ñu annoncé tàmbaligul noonu Mamadou Ndiaye nek étudiant en lettres mom dafa ñu xamal ni yegul sax mbir mi. j'étais pas totalement au courant dafa am solo la quoi parce que genre si on rate bien la sécurité au campus elle n'était pas totalement assurée genre suñu xoolee ba ci bir té légui lolu mën ki quoi lolu mën na mën na wàññi kii bi genre mën a sécurité bi ci bir campus bi té légui lolu je pense que c'est vraiment une bonne chose en fait. ci buntu campus social bi nak fekk nañ fa ñaari xalé góor ñu tok ci ay chaises plastique ku ci nek nak di enregistrer étudiants yi wante jafe ngir ñu tontu ci suñuy laaj. man je ne suis pas habilité a wax am na ñeneen ñoo xam ne ñoom ñoo yi pour identifier leen tàmbali na tey ci daara ju kawe ju université Cheikh Anta bu Ndakaaru li ko tax a jóg rek mooy gën a ñoŋal wàllum kaaraange gi ngir bërëb ba di wéy di am jàmm. Umu Kalsum lii foofu lay ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru niki tey ji ci suba la ñu tàmbalee ñàkk étudiants yi ngir xeex feebar bi di mbas mi mu dib campagne de vaccination boo xamante ne dafay wéy ba fukki fanak ak juróom-benn ci weeru octobre mu jëm nag ci euh, te reprise cours yi nga xamante ne ñu ngi ko nam amal le 18 euh, octobre lu toll ci juróom-ñetti fukki dose vaccin la leen ministère de la santé jox Awa mbay ci biir faculté de droit ci université Cheikh Anta Diop bu Dakarou ñu tek fa ab table bo xamantene ñenti agent de santé ñoko wër ñom nak dañuy toppatoo lu jëm ci ñàkk bi amna yenn ci étudiants yu ñëw di bindu ñom itam ngir ñu dafal leen benn dose bi di Johnson and Johnson. Maimouna Djiba étudiante en deuxième année faculté des sciences juridiques et politiques. mom néna dafa bëgg a bopam boppam ñeneen ñi ci biir université bi nga xamantene ne dëkk bi dafa xat. parce que daf may ar ar sama morom ar sama mbokk étudiants teg waa suñu université déjà ñu ñuy dëkkee ci amphi ci ci ci dortoir yi pratiquement buñ ko défé dinañ ar suñu bop ar suñu suñu suñu morom benen taabalu ñakku ñu teg ko ci biir faculté médecine fi mom ñi ñëw di ñàkk ci néw na lool waaye président amical bi di mohamed Kébé né yaakar né né xibaar bi bu jallé ñu bari dañu ñëw jël sen dose ñàkk Johnson and Johnson muy rafetlu bu baax campagne bi ñu door tey. dafa nekk benn moyen bo xamanteni université da bëgg jox exemple. Euh, Sénégal gi yëpp te vaccination bi da ci doon jéeg bu ama ama am solo boo xamante ni dina permettre étudiant bu ne mu protéger boppam mais aussi mu protéger déjà yeneen étudiants yi mais à moom aussi mu mën a protéger Sénégal gi yëpp parce que étudiant aussi sacerdoce am loolu la dafa war a nekk bouclier boo xamante su bëgg amee lu bëgg a askan bi rek moom day taxaw jàmmaarloog moom. professeur Mor Ndiaye moo yor commission bi toppatoo programme bi nan la tëddee ak itam jumtuwaay yi mu àndal jëm ci campagne bi. ñàkk bi nag li tax mu possible mooy ministère de la santé parce que moo ñu jox ñàkk yi ba pare def na sous la supervision du district Dakar centre Gaspard Camara. ñu jox ñu quatre vingt léegi nag dañu daal di choisir fii juróom-ñetti site. léegi vaccin dina am bis bu nekk. neuf heures ba treize heures Johnson and Johnson bi nga ni def muy dose unique ñi concerné mooy étudiants yi personnel ñi jàngale ak euh, personnel fukki fan ak juróom benn ci weeru octobre bi ñu nekk université yaakaar ñàkk ay étudiants yu bëri lépp rek ngir mën a waajal ubbite ñàng meeg ñàngale mi war a am fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre bi ñu bëgg xeex mbas mi ba du leen gàllankoor ci dara. Awa Mbaye campagne de vaccination boobu ca université ma fàttali leen ko dafay wéy ba fukki fan ak juróom-benn manaam le 16 octobre mbas mi ba tey ak euh, natt bi nga xamante ni def nañu ko tey ci junni ak ñeenti téeméer ak ak benn euh, test yi nga xamante ni def nañu ko ñoo ci dellu si amee doomu jàngaro ji mu di ñaari cas communautaire yi ñu nemmeeku fii ci ndakaaru fukk ak benn cas grave ñoo nekk Sowetas ci jamono ji amul kenn koo xamante ni ñàkk na bakkanam ci feebar bi ni ki euh, démb dem ca Tiwaawoon am na benn bassin de rétention bu fa nekk foofu ñaari taalibe ñoo fa lap ba ñàkk seen bakkan mbir mi ajjuma gi weesu la woon euh, loolaa tax euh, suñu ndaw la fa nekk di maam astukan nga xamante ni désormais moom moo ñuy toggal foofule ca Tiwaawoon demoon na ci quartier yi nga xamante ni ñoo wër bassin de ñoom ne ñàkkum kaaraange ga daal nemmeeku nañu ko ak gi ci autorité yi def ñu ànd ak moom. ñoo ngi fii ci ci quartier Chérif Cheikh Ahmed Tidiane fi nga xamante ni ab bassin de rétention moo fi nekk mu doon quartier bu wéet mu jafe lool sax nga gis nit booy taseel ci bassin bi nag ay xale dañ fiy faral di ñëw ba ci sax di ci lab ajuma bi ñu weesu ñaari taalibe ñàkk nañ ci seen bakkan Fatou ak Marème di ko ñaawlu. ñun dañoo nekk ci bassin bi yor suñuy doom dañuy tëju gis nga li xam nga ne ay taalibe ñoom ñoo fay dem noonu ndeysaan di sangu ba lab fa te bi amul barrière amul dara xam nga ne xale la sécurité mu am barrière am gardien du ñaari xale yi de bala ñu fi tux rek am na set xale yoo xamante ne woon fii lañ gaañoo ci giddaaw jiddëgee lañ dëkk yooyu yëpp dafay am laa xale yi yàgg nañ fee lab di dee keroog bi nekkee fii dégg ne am na xale yu fi lab ñun ñëpp mu metti ñu loolu nag ndax yaay ju ne yaay nga fu soriwul dara bassin bi ñoom ñi lay fa lañu dëkk ba tey ñi ñuy xamal rek ñàkk karange ak ñàkk lamp gi am ci lu wër bassin bi lu ñu dimbalee nag ñu jël ci suñu bassin bi pour mu am sécurité ndax dañ fay ne jur fi suñuy doom foo dem sa xel du daal ndax xale yaa fa nekkal ndax xale mënoo koo téye dara tàkku ci amul benn lamp dafa lëndëm këris ñoom ñu gis nañ moom jaañ si mbeeg moom mi nga xam moo fi nekk gis na ni mu lëndamee nañu fi wutal barrière dafa ñu ci sécurité ñoo fi nekk ak suñuy doom ñoo ngi ñaan nag autorité yi nañu ci dimbali te yàlla rek tax ndax dañoo jaboot yore ay xale kii lëndëm na lëndëm goo xam ne bu guddee wóolu woo génn jën wala nga yónnee sa doom boo ko yónnee sax sa xel du daal te dimbali nag ci sunu bi wutal fi ay làmp. ñi dëkk ci quartier Chérif Cheikh Ahmed Tidiane te wër bassin de rétention bi di autorité ñëw dimbali leen ba noppi daal di indi ay solution yu mucc ayib maam astukan fii ci Tiwaawan rajo Futur Média. jóge Tiwaawan wutali cee na ba foofu nag daañu amal gàmmu gi ci atum ren ji xalif général ba di Serigne Assane Seck ci janoo gu mu seqoon ak taskati xibaar yi xamante ne ca la ñu nam euh, jaar ngir amal gàmm googule am na ay coppite yu bëri ñu nam euh, andi daal dina nag euh, profito sàkku ci askan wi ngir rek ñu xoolaat yi ñuy waxante rawatina ci réseaux sociaux yi Cheikh Anta Diop Ceneba ren jii de gàmmuk Ceneba ren ji ñu fas yéene koo amal xalif bu yees bi toog ci jal bi di sëriñ Assane Seck di woo nag njaboot gi ñoom ñëpp ñu nekk benn booloo ngir ñu amal ren ji gàmm gu mucc ay Ngagne Demba Sarr moom moo yor kàddu xalif général bu Ceneba xam dañu aju ci kër aju ci cena ba di kër maam amri ndaak seet mi ngi len di sant da ngeen dokkeel ñëpp ci weeru gàmm gii di ñëw wante li changement bi mu ci bëgg mu am dani su weer yu feeñee dani doomam ak sëtam yi nekkoon ci jumaa ji jàng im na mayee bi fukki fan yi gàmm gi bis bu njëkk boobu mi ngi koy yëgal taalib yi ci wàllu yenn ci ay jëfin yi nga xamante ni ñu ngi koy gis jamono yi uh, ci réseaux sociaux yi xalif général bi nee na tegginawul ndaw ñi dafa mel ni yar amatul rawatina taalibe yi nga xamante ne ku ci nekk yaa ngi dugg ci réseau sociaux yi di kañ sëb sëriñ te loolu day indi féewaloo mboolem nekk ci kër sëriñ si te ne ci plateau yeeg réseau yi réseaux sociaux yi li ñuy wax tam nañ koy seetlu ba bañ a agressé kenn ndax réew mi laajul yëkkati ay wax yoo xam ne day sosoloo ay xol diine yi laajul loolu xare yi laajul loolu mbokk gi laajul loolu sëriñ kene ba ne mi ngi koy aaye njabootam waaye di ko aaye mbooleem ku koy def ci réew këru diine yi ne ko mag ñi sampe woon taraanga ak mbaax ak am kersa seen i diggante séqante jàmm ak baax ak kulëre comité bu gàmm bu cene ba nag jamono yi nag door nañu liggéey bi coordonnateur bi di El Hadj nee na jël nañu bépp matukaay lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ak xeex mbas mi ba képp kuy dugg cene ba daañu la aar ba keroog gàmmu gi ji jeex dañoo bëgg ren ji kenn du yóbbaale mbas RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Ndar gu ndaw Thierno Kandji ak Texaco lépp di ay quartier yu nekk ca jurbel ba fii nag ñu ngi tëmb ca ndoxu taw bi Euh, am na ay kër yu bëri yu nga xamante ni sax euh, ña fa dëkkoon dañ ko faf abandonné euh, bàyyi ko ci gannaaw dem wuti feneen fu ñu làqu yokk ci nag ñàkkum karange ga ak feebar yi ñu ne dafay feeñ ci nawet ñu ragal ñu jot leen loolaa tax ñu daw ñoom ñëpp ku nekk wuti fu ñu làqu rawatina ci bés bi nga xamante ni ci la ñuy màggal journée de l'habitat loolaa tax askan wa daal di yëkkatu kàddu sàkku ndimbal ci autorité yi Alimatu Sarr mu nekk lu doy waar ay kër yu bari seeni boroom daal di koy gedd. ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci gox yi nga xam ne ndox mi nekk na fa ñoo ngi dund lu doy waar Serigne Modou Ndiaye dëkk ci quartier Thierno Kandji chaque année ngay inondé say bagage di yàq nit ñi mujj bàyyi boo defee tuuru koñ bi di nga gis lu ëpp dix voire kër yoo xam ne nit ñi abandonné nañ ko tout en espérant que ne chaque année xëy na état dina def dara lu nga xamante ne dinañu soulager at bu ñëw day gën a metti li ni mel nag mel ni ak ñoom ñoo dëkk ba tax na ay njaboot yu bëri tey jii bàyyi nañ seeni kër daal di dem feneen am sa kër liggéey ko ba mu mel na mu mel jekk tubaarkàlla macha allah te nawet bu jot nga génn nga ni mu mel ndox mi nangu moo ko nangu sonal ñu amuñu doole Fatoumata Aydara di ab yaay moom nag li ni mel gis na ni nekk na lu naqaree dund rawatina bi nga xamante ni autorité yi jàppale wu ñu leen si njaboot boo koy masawu da nga koy jox ci lu mu jàpp ndax nit bu dundam yàqoo dëkkuwaayam yàqu mu yore njaboot gu sew munoo jël ñëpp ki jël leen en charge mais kenn ku ne war nga ko mën a tuufal bëtam li ne dina a ca ndax gu ndaw bassin ba nag nga xamante ni nga fa amna na lu bëri lu cay def amna na xale bu góor boo xam ne bii ba muy gaañ am na lu mat ñaar fukki at ci bassin bi la gaañ ci mi ak bassin bi yoon na léegi xale yu góor yeeg fàqmaan ci biir garab yeeg ci ndox mi la nekk di kar nit ñi ku di dem marché amul ku la gunge doo dem ay kër yu bëri ñu gedd leen am si ñi nga xam ne ñoo dëkkee fii ci Diourbel te ndox mi daal di leen sonal ñoom nag ñoo ngi woote wàllu alimatu saax fii ci Diourbel rajo Futurs Médias jóge siwaat fii ci ndakaaru wax ci wàllum politique ca golfe sud mairie ba daal boo moytuwul ka fay doon candidat ma ngay féewale responsable apériste yafa dem na sax ba Alioune Sall di frère ci jiitu réew mi sàkku ci kii di Néné faatumata tàll ngir mu bàyyi kii di Lat Diop mu doon candidat ba waaye loole moom ministre de la jeunesse di Néné Fatoumata nee na ko loolee daal duggul ci noppam euh, ndax nee na directeur LONASE di euh, Lat Diop bi jamono yi métti daal kenn gisu ko woon tey la neex rek mu bëgg a ñëw Néné nag ne loolee ba tax na sax nee na ragalul jàmmaarloog ñoom ñaar ñépp leeral yeeg Umar Mbow. démb ñoo nekkoon ngir xeex Lat Diop tey nag Aliou Sall ak Néné Fatoumata Tall jubóowuñu ci dara. ñaar ñooñu sax boo moyul dinañu nekk ay adversaire ci élection locale yi ñu jublu bi ñu sukkandikoo ci suñuy xibaar yu wóor lool ràkk njiitu réew di Aliou Sall daal dina wéet Néné di ministre de la jeunesse ngir rek mu teg candidature am ci suuf ñu samp Diop mu doon nag ab proposition bi nga xamante ni neexul dara Néné Fatoumata Tall mi ñu jàpp ne directeur bu lonage dafa Alliance pour la République jamono yee ñu génn moomee nag jàpp na kuy wor xelam nanguwu ko ko mu bàyyi kooku mu dem représenté APR ci élection yi mun nañ jàpp ne ndaje diggante Aliou Sall ak Néné Fatoumata kon Kone juboo amu ci mun nañ jàpp ne sax ñaar ñu tëx ñoo doon waxtaan ndaxte ministre bu ñu dënk ndaw ñi di Néné Fatoumata Tall nee na candidature am ca maire bu Golf Sud du kenn mooy tax mu bàyyi ko ci jamono ji nga xamante ni maire bu géeje waaye moo ngi jéem a dajale nit ñi ngir ñu soutenir Lat sage yu mouvance présidentielle yu nekk ci commune bi gère ak bàjjenu gox ne ne Fatoumata lañu RFM Guédiawaye Omar Mbow ñu dem ci commune bu fanay foofu nag euh, askan maire ba euh, maire ba ca boppam di Alun Gueye moom la élection locale Euh, moom ci boppam Alioune Gueye ba mu jëlee kàddu daal dina lim jafe-jafe yi nga xamante ni moom la commune am amee jamono jii dafa ruqee dem fa doonut lu yomb ndax yoon yu bon ba pare nag amuñu ndox mu sell amuñu courant loolaa tax mu ne faw seen budget bi ñu yokk ko Alioune Gueye kàddu yu mu dénk Ndeye Mati Dieng commune bu mel na Fanaye ne wayam yenn département yu ñoo tolloo pour wax budget doyna suñu budget ay ñaari témer millions lay nekk c'est difficile pour nga wax loolu doyna ci ñeen fuk ak ñaar village officiel ak euh, juróom-benn fukk ak lu teg ci village yoo xam ni c'est pas officiel am nañ ay jafe-jafe surtout lu des ci éducation bi des na lu bari on a créé une vingtaine d'écoles buñ buñ fi ñëwee ba léegi santé bi on a investi beaucoup mais des na ni commune bi yaatu suñu sago mooy dëkk bu ne qui commune bi am accès à l'éducation euh, bu bugg soxlee faju faju surtout xam ngeen ci jéeri bi toujours ndox dafay nek problème à part zone Sousane bu jëm ba haute tension bi fofu nga xamni ni ba léegi euh, problème ndox amna fofu foofu bi désenclavement bi aussi warna am parce que piste bo xamni ni PUDC validé na ko diggante fanay teskéré bu labgal wolof vraiment dañ koy yakam électricité aussi des na euh, parce que deku jéeri yi tat rek moo ci am électricité presque 70 dix ngi foofu yoo xam amuñu courant RFM bitim réew. ñu dalal Georges de Diop Georges ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy. tambalé ko ci Côte d'Ivoire mbirum euh, Konabertin Bertin amna lu yes lu fa am li yees li euh, moo di avocat yi ne duñu euh, layol ki nga xamantene wala duñ ko défendre ki nga xamantene mo koy euh, jiiñ ne ko violé né nañ dal avocat né nañ duñ ko duñ nek seen avocat mom dal du muyu nañ ko ci parti rek da am benn soxna su jigen si nga xam benn soxna si nga xamantene ne Cameroun ak fi nga xamantene modi Côte d'Ivoire ne lo Kouadio Konan Bertin de ko violé tax sax bu mu yóbbu won ab plainte ba euh, tax euh, mom euh, ministre de la réconciliation fofu ci Côte d'Ivoire addu ci né l'olé dal bàyyiw ko sax xel tax mu mu porter plainte dem nak ci ab jano bi nga xamante ñu ko don amal ak taskatu xibaar Ligue ivoirienne des droits de la femme di ñaawlu lu bari li nga xamante jaarul yon ci procédure bu mbir momé ñu dem ci Éthiopie premier ministre ba tey lay wat manam prêter serment. tay ci suba sax la ko def ci kanamu président bu cour suprême di Meaza Aché na fi euh, parti bu Abiy Ahmed nag moo jëloon ndam la ca élection yi ñu weesu élection législative yi nga xamante ne ñu amoon ci weeru juin gi ñu weesu moom nag euh, prêté na serment ngir ab mandat bu juróomi at Algérie woolu ambassadeur am ba ca France euh, ngir am laaj ya nga xamante ne ko ko eggee dogal googee nag ñu ngi ko jël gannaaw bi Macron yëkkee ay kaddu ci ay ndaje ci ab ndaje mi nga xamante ne ñu ngi ko mu ngi ko amaloon ak ndaw yi nga xamante ne ñoo bokk ci famille yi nga xamante guerre d'indépendance ba l'Algérie, euh, Algérie euh, moom daal euh, marqué na jeexaleek li nga xamantene ne prix Nobel bu euh, médecine euh, ren gii nii ñu ko jox américain bi di David Julius ak euh, américain bi cosaanu Liban ak Arménie di Ardem Patapoutian lolé nak ndax ay découverte yi nga xamantene def nañ ko ci luñu duppé système nerveux naka nonu itam température bek ak itam bo tégué sa loxo fenn laal ko jeex tak takk jërëjëf Georges Déthié Diop sport bi ñu dalal Youssouf Bodian ñu ngi lay nuyu Youssouf. di la fay euh, Barthélémy di nuyu ñëpp. walu football lañ koy tambalé suñu gaynde yi tey ci ngone lañuy déllu Lat jor 17h lay doon séance bu njëkk séance d' entraînement huis clos euh, pour kon euh, joueur yu njëkk ñëw ci tanière bi des ci groupe bi ñu ngi leen xaar tay ci altiné bi bokku na ci Sadio Mané Idrissa Gana Gueye ak yenn ci joueur yu xamante ne lañ jogante dëmb ci dimanche bi Sénégal kon di waajal ñaari match si digganteem ak euh, Namibie le 9 octobre ca Thiès 12 ca Afrique du Sud euh, lay doon match euh, retour bi jàppale ni kon loolu bokk na ci ñetteel ak ñeenteelu bëccëg qualification Coupe du Monde Qatar 2022 waaye Coupe du Monde Boublé ci weeru janvier Sénégal dina demaat jéem a rëbbi Coupe d'Afrique ndax booba léegi ñu ngi koy wër amunu ko. Euh, ca Cameroun lay amee bu ci bu mujj bi 2019 Sénégal kon euh, dem ba final waaye mujj ko gagné saa ñu amee défaite euh, lu bari ci équipe football wala yeneen équipe, yi ñu bari dañuy wax kon lépp lu jëm ci wàllu mental wax ni suñu joueurs yu bari seen mental dëgërul moo tax ñuy ñàkk match yooyu le moo tax it équipe bu mel ni Casa Sport moom nee na ci matcham bi mu jógee ci wàllum coupe du Sénégal diggante ma ak jàmbaar am na ay ñu am seen xel match ci wàllu woowu. Euh, jël leen ngeen ñu a wax euh, au plan mental euh, entraîneur di conférence de presse bi moo tax directeur technique club bi lan solo préparation mentale équipe soo jëlee benn leket nga def benn cercle nga dog ko si digg dangay am 50 pour 50 pour cent fële yi nga 50 à droite joori ñoo ko moom après beneen 50 bi soo ko dogee si digg dangay am 25 fii nga am 20 25 bu nekk si suuf boobu entraîneur bi moo ko moom 25 boobu def foofu la préparation mentale psychologique bi war a nekk. dafa am benn affaire boo xam ne fii Sénégal fii joueurs yi duñu équipe yu bëri dañ ci néew doole mooy lu anglais di ne feeling away match maanaam li nga yëg ci match soo waliyee soo demee footballiste bi dafa néew trop si équipe sénégalaise yi yëpp fii muy équipe nationale muy sélection de tous les sports di nga affaire boobu si Casa Sport la gën a am doole fii si équipe yëpp Casa Sport jambour, linguer hmm. parce que di nga Casa dafay jouer dimanche Ziguinchor dimanche bi ñëw mu dem jouer Kaolack mu dellu si Ziguinchor jouer beneen dimanche bi mu dem Diourbel ñëw Ziguinchor jouer beneen dimanche bi mu dem Louga ñëw jouer Ziguinchor beneen dimanche bi mu dem Ndar xam na ay situation yu bari yu mel noonu ma daan dafa am lu muy wàññi si équipe yi si joueurs yi bu ñu wàllyee maanaam dem bitim dem jouer feneen à l'extérieur si match amicaux maanaam soo seetloo seetal bu baax a baax suñu équipe yi même ba si équipe nationale yi côté boobu euh, dañ si néew doole trop mhm. parce que suñu championnat régulier fii si dëkk bi sensation de match à l'extérieur yi dafa néew amul doole trop. ok mhm. jàppal kon ni euh, am na ay entraîneurs yoo xamante ni jamono yi depuis démb euh, ñu ngi euh, tàggat seen bopp ci wàllu woowu ànd ci académie marocaine de coaching mental ak sportif loolu nag ñi ko sumb di syndicat des entraîneurs du football bu Sénégal formation bi suba lay jeex fële ci maison de la presse. Demba Ramata bi ngeen dégg noonu kon di directeur technique bu Casa Sport nee na équipe bi kon euh, suba lay euh, yegg foofule ca Ziguinchor waaye laata ñuy dem ca Ziguinchor ci yoon bi dañuy jadd fële ca Gambie ngir daal di saafonte ak euh, ay famille seen yenn seen joueurs yi te bàyyi Gambie waaye tamit daal di remercier responsable fédération gambienne de football ndax saa ñu soxlay joueur foofu la ca Gambie. Mhm. dañ leen di yombalal mbir mi. waaw Youssouf euh, mbay lay moom standard de Liège dàq na ko. waaw loolu nag euh, la ñuy xëyee tey xibaar bi moom ancien international sénégal bi nekkoon euh, entraîneur équipe bi nee nañu kon dàqal nañu contrat am ak club bu Belgique bi. Euh, loolu nag ginnaaw bu mu teglee ñetti défaite euh, ci championnat bi Standard Liège moom jamono yi mooy 12e ci championnat bi ginnaaw fukki bëccëg euh, juróom-ñeenti weer la kon doomu Sénégal bi def ci ban wu Standard Liège bi mu daal di am fukki victoire ak juróom benn am fukki défaite ak juróom ak juróomi match nul la ñu desee ca Europe ba léegi ak kii di Kalidou Koulibaly xëy ñaawlu li mu wax ni kon ay saaga la jëm ci wàllum racisme dëmb bi équipe bi di Naples di jongante ak Fiore Valentina kon supporter bu ko saga mu ñaawli ni mel japp ni faaw ñu jël ay dogal ngir ay nit ñu mel baña a dugati ci euh, stade yi. wax na sport mom wax bu warul warul daja xaajale ay nit dafa wara dajjal mhm. ñu dem ci fuñjuñ Youssouf fuñjuñ mom xam nga foofu bu baax. bu baax a baax <laughs> jaar ndaaxaw nga. waaw jaar ndaaxaw nga waaw stade municipal ba fa nek day danaka tour rek la. waaw muy noonu ki nga wax de moy euh, Bruno Derneville euh, mom demone fofu le ngir parrainer ab finale zone 1 bu fuñjuñ euh, final bobu ki nga gagné sax moy ASC Walidane mom Bruno Derneville ñu déglu ko ci micro Aminata Goudiaby ñuy la ñu xaw a ñaawlu mooy li nga xamné terrain Foundiougne wax dëgg waron na wessu fi ndax Foundiougne nek chef lieu départemental waron na am terrain de football bo xamné war nañ ko mëna présenter ak ay tribune ak terrain bo xamné nivelé nañ ko terrain bi ku ko gis xamné nivelé wuñ ko ndax bal bi buy buy tëb day tepp di dal à droite à gauche amul amul amul ligne bu baax ndax nag dafa nivelé wuñ nivelé wuñ ko té amul gazon synthétique amul gazon naturel liñu bëgg moy autorité autorité yi jël conscience ne que football bi dafa nek lo xamné éducatif la manam pour jangal ndaw yi ñu am yenn taxawaay waye itam football bi dafa nek industrie manam dafa nek lo xamné mën na indi koom maanaam euh, communication la marketing la koku baxna ci gox muy am ay équipe yu bax waye équipe yu bax nak boko ko am il faut que nga am ay infrastructure yu bax manam ay équipe ay ay ay terrain yu bax kooku di Bruno Derneville euh, Bart euh, Fayil am ngeen terrain bu Fayil kay amuñu terrain Fayil moom. <laughs> fan ngeen di boole am naa ne ah dem ci kekk gi ci tan bi foofu rek samp ay bant rek. <laughs> jaajëf naa ne maire bi war nañoo. waaw war na gëstu de <laughs> jaajëf Youssou Bodian. RFM nit yi yéen NCA Assurance, Savon Marseille Alphé, Kenkeiri, AAD, Abdou Alima Diop, Deodran, Malaysia UMO, Accent Marque Téléphone UBC Dimion. ñoo ne ni may li ci yéenekaay yi. billaay yéenekaay yi ñoo ànd ak uh, Mamadou Mouhamed Ndiaye. jirë ngeen jëf mer mu rëy mi am ci biir police nationale la l'observateur xëy becc ci xët mu njëkk faatu ndem si yàlla Cheikh ñas moo yëkkati dënnub lieutenant Ahmed Bachir Ndiaye mi ne woon chef de poste bu police bu Wakhinane Nimzatt di fa ñu garde à vue woon laata ñu koy defere ca tribunal bu Guédiawaye ginnaaw bi ñu mandat dépôt ko yóbbu ko ca pavillon spécial bu hôpital Aristide Le Dantec di fa mu faatoon ndax hyperglycémie ci ni ñu ko waxee l'observateur mi ngi ñuy wax ne ne ci kilifa yu police bu Sénégal doxale neexul lieutenant Ahmed Bachir Ndiaye ba tax mu bindab lettre di ko ca ñaawul ak di ko ca naqarlu li ko naqari nee na na moo di li xew amu ci benn responsabilité bëgg ko sànk ak bëgg a yàq carrière moo tax ñu bëgg ko sippi cooli ba tax ñu jëlee ko ca police bu Wakhinane Nimzatt taf tafee ko patam patamee ko affecté ko ca direction de la formation lieutenant Ndiaye jàpp ne dañu koo toroxal tuutal ko ci mbir moo xam ne yu ko gën a garaaw fopp xew na fi te gaawante wuñu ci ni takk bi ci lieutenant Ndiaye joxe moo di waa ji ñe dafa xaru woon ca police centrale bu Ndakaaru ci mbirum Boy Djiné enquête dina kay nañu lieutenant Ahmed Bachir Ndiaye dégase nay responsabilité ba mu set wecc ci faatuk Cheikh Niass nee na moom ab policier la du def lenn luy gàkkal waroon moo di jox ko demande d'explication laata ñu koy woo ca kanamu conseil d'enquête bay jël dogalub di ko affecté liet na njaay ne sama famille yëpp a ngi ci dansé ci mbir mu leen concerné mbir mu yéeme ma xewoon ci Hann Bel-Air keroog samedi journal Le Quotidien xëy na ko mu di taaxum ñaari étage mu daanu ba juróom-benni doomu yaa dama faatu ci ñu bëri jële cee gaañu-gaañu journal La Tribune xëy moom di dëggal xibaar bi ba dolli ñu ci ne bu weesoo taax Benno Bokk Yaakaar ca Pikine tànn nañu maire bu Pikine di Abdoulaye Timbo samp ko def ko seen candidat ca mairie bu ville bu Pikine ci élection locale yi yéenekaay bi nañu ci conférence de presse bu conférence des leaders coordination départementale Benno Bokk Yaakaar doon def keroog samedi fa la ñu jëlee samp Abdoulaye Timbo ngir mu jiitewaat mairie bu Pikine ci jamono jooju Source A mi ngi ñuy xibaar ne honorable député Aniya Mbeng moom it aw commune ak juróom ya fa nekk ña fay jàppal tànk yi Idrissa Seck di waa parti mi ñoom ñëpp Yankhoba Diattara la ñu jox bopp cib assemblée générale bu ñu doon def keroog samedi fa mbooleem coordination yu parti mi ca diwaanu kees ànd juboo ci jël Yankhoba Diattara jiital ko wàllu Sénégal l'info nee nañu Abdoulaye Wade ak ñi mu àndal ci coalition bi ñu taxawal ci local yi noonee la tuddee seen coalition bi mu di wàllu Sénégal ajjuma ji di ñëw ci la a beneen candidat bu ko tane kon dana dem jàppale ji ko te coow du jip waaye ba muy metti yëf yi laajoon taxaw xeex jël sab xaalis di ci def ak di dem kasoo ko ñëw moom rekk la woon gisul woon keneen Sud Quotidien nañu ñoom Xalifa Sàll di waaye yeewi askan wi yóotu mairie bu Ndakaaru seen jur jàng moo di ana nan la ñuy def ak Barthélemy Dias ba mën a jote ca mairie ba maire Malikounda Maguette Sène dooni directeur général bu centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru di kudd moo nekk ci page 4 ak 5 bu l'Observateur ubbil yéenekaay bi ginnaaw bi mu leeralee li waral mu sampaat am dëndam doonaat ngir jiitewaat mairie bu Malicounda Maguette Sène waxtaan nag waa l'Observateur waxtaan wu yaatu ci ponk yu bari doore ko ci mbir mi ñeel rentrée universitaire 2021 2022 wàllu kaaraange gi ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mbirum codification yi ba ci cadre physique bi Maguette Sène nee na lépp a soppeeku ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mi ngi xamle ci waxtaan wi ne ak matuwaay yi ñu jël jëm ci wàllu kaaraange bu ñu ca paree étudiant bu ci nekk carte biométrique lañ lay jox mooy mën a tax ngay dugg ci campus bi kër bi fii ci Ndakaaru réew mi quotidien ñeenti nit lañu fa teg loxo journal bi nañu liñ leen di toppe ba tax ñu jàpp leen mooy dañuy jaay ay médicament yu ñuy yàqi ëmb. NCA assurance savon de Marseille Alphée Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop déodorant Malaysia UMO ak seen marque téléphone yu bees yi di Mion ñoo leen doon may li ci yéenikaay yi. xibaar yi gis-gis. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye mbokk yi ñu euh, yegsi ci ponk bu mujj bi ci xibaar yi di gis-gis euh, tey la bés bu ñu jagleel habitat maanaam dëkkuwaay euh, mu yemook nag taax yi di màbb ci nit ñi ngir waxtaanee lu ne mel ñu ngi ci ligne bi ak Mansour Tall monsieur Tall nu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. yow urbaniste nga enseignant chercheur ci Amadou Mokhtar euh, Mbow war nañu euh, euh, madame architecte première femme architecte du Sénégal waye jotaguñu ko kon ñu des ak yow habitat journée de l'habitat habitat d'abord de lan ko waaw xam nga habitat dafa Mm-hmm. mais mooy mooy dëkk ak dëkkuwaay. Mm-hmm. Euh, mbootaayu xeet yi dañuy cërale agence boobu ñu tuddee ONU Habitat lépp lu jëm ci fexe ba dëkk gën a ñoŋ. Mm-hmm. mais aussi dëkkuwaay gën a yomb. pour que nit ñi ëpp ci nit ñi bu dee ñëpp mënuñu mënul matale aussi. ñi ëpp ci nit ñi am dëkkuwaay yu nga xam ne dafay dëppook Euh, jamono dafay dëppook ñoom ay critères yu ñu yu nga xam ne ñoom ñoo ko definiir mhm. kon habitat daal ëmb na dëkk ëmb na dëkkuwaay euh, moo tax souvent dañuy fàtte ne habitat rural it ci la bokk mbaam mbaam gàtt na waaye ci cur gi la cur gi la bokk mhm. waaw habitat daal lu yaatu la maanaam mooy mbirum dëkk ak dëkkuwaay mhm. d'accord mbirum dëkkuwaay nag mooy li ñuy jëfandikoo parce que bu doon kër rek du tax dëkkuwaay ñoŋ. Mhm. fokk nu am mais ñu bëri tey boo waxee habitat ci dëkkuwaay rek la ñuy dem. waa ci dëkkuwaay lañuy ñuy yem mais agence boobu man liggéey naa fa fukki at ak juróom donc ñoom boo xoolee seen bàkk. Mhm. mooy dañuy fexe ba dëkk ñoŋ urbanisation durable mais logement pour tous. Mhm. donc ñaar yooyu yëpp la ëmb. Euh, dafa jafe matale nag surtout ci dëkk yu mel ne sunu dëkk yi. nga xam ne seen doole dafa néew. waaye ñaar yëpp ci la bokk. ñaar yëpp ci la bokk euh, euh, madame Gaye yegsi na euh, madame gay Adja màgget Ndiaye nu ngi lay nuyu. waaw kon man maa ngi bu baax. yooyu architecte nga di it première femme architecte bu Sénégal tey ci wàllum dëkkuwaay habitat la nuy waxtaanee monsieur Fall mu ngi ñu koy définir sànq dafa yaatu du rek dëkku dëkkuwaay bi kese waaye li wër ak moom yëpp dafa bokk ci habitat seetlu gi mooy fii ci Sénégal da ngay gis nit ku tabax. xëy na sax tabax nga du ko tax a demee noonu euh, ndaxte normes yi yëpp euh, yi ci war a dem yëpp du ko respecté ba pare environnement bi ñëw également gën a yées loolu est-ce que bu amee mën nañu wax dëkkuwaay bu baax. waaw dëkkuwaay bu baax moom dafa laaj vraiment que nit ki liggéey ko suivant les normes. Mhm. régies par par euh, l'architecture. te l'architecture est bien réglementée au Sénégal quand même. Mhm. loolu nu mënta wax daal fii. Euh, nit ñi léegi ñu ngi comprendre bu baax luy tabax. Mhm. comprendre na parce que. tabax nit ñi ñi comprendre nañu euh, ne tabax dafa am ay normes yooyu respecté mais malgré tout du nu du nu ko def est-ce que également état bi waruloon am droit de regard ci côté boobu. waaw état bi am na ci droit de regard état bi mu ngi ciy xool loi yi nu génne yëpp sur l'architecture sur l'habitat sur l'urbanisme euh, état bi mu ngi ciy xool bu baax a baax. mais protection civile aussi fokk mu xoolaat bu baax. Mhm. bâtiment yi menacé en ruine yëpp foog ñu jëm leen seet génn ay loi de jéem tere nit ñi ñu dëkk ci. Mhm. parce que tamit ñëw fekk bâtiment muy menacé ruine nga gis ñu dëkk que d'une manière boo xam ne. mi daanaka miir yi xar fu nekk. mur yi xar fu nekk ba pare euh, ku ñëw rek dëkk duñ soucié wu ci dara dëkk fa nag ay ati at. di xaar rek loo xam ne lu mel nii ñëw loolu kenn waratu ko seetaan. Mhm. donc euh, il faut également euh, au niveau des communes yaakaar naa maire yi aussi am nañ ci wàll ñoom ñi nga xamante ne ñoo jege askan wi ñoo dëkk ñoo xam taax yi nekk seeni commune commune yi duñ ko remonter tous les échelles ba ci ba quartier ba chef de quartier yi. Mhm. ñëpp kañ am nañ ci wàll. waaye nag gendarmerie yi nag. Mhm. ñëpp ci am wàll. takk der ya ñëpp ci am wàll yenn yi kenn waratu ko nangu ci dëkk bi d' accord dinaa dellu si war a absolument dinaa ci yow madame Gaye alors euh, monsieur euh, monsieur monsieur Tal. d' abord pour tabax yan yoon yoon nga war a jaar pour que tabax gi mën a répondre aux normes waaw xam nga euh, dëkk ci boppam bala ngay agsi tabax bi dëkk ci boppam dafa am ay tëralin yu ko yu mu war a weeru mhm. quartier yi ñuy defar dañuy dañuy dañuy tëggu ci ay plan Euh, plan yooyu bu sooxee rek déjà bu ñu accès ci dëkkuwaay bi ci boppam mooy aménagement bi. waaw mooy plan d'urbanisme bi. Mhm. xam nga dëkk bi dafa war a lalu ci ab plan d'urbanisme. Mhm. plan d'urbanisme boobu dañ koy defar à l'échelle de la ville di ko defar à l'échelle de du parti de ville. Mhm. mais bu ñuy bu loolu wéyee euh, dëkkuwaay bi ci boppam état bi at yi mujj yëpp def na ay jéego yu xaw a yaatu mhm. ci wàllu saytu surveiller maanaam di xool euh, ni nit ñi di dëkkee taxawal nañ lu ñuy tuddee descos parce que gisoon nañ ne nit ñi di occuper espace bi mhm. parfois dafa dafa poser problème am na beneen kuréel bu ñu taxawul depuis léegi mat euh, léegi mu jege fukki at muy inspection générale des bâtiments boo gisee yenn bâtiment yi surtout bu dee bâtiment yu kawe di nga gis ñu jaar fa ñoom marqué ko parce que am na lu fa lu ñu fa respecté wul Mm-hmm. mais xam nga loolu yàggul te nit ñi bañ dalee tabax xaw na yàgg. Mm-hmm. boo xoolee immeuble yi xaw a daanu aussi parfois day nekk immeuble yi nga dañ ko tabax avant ñuy taxawal jumtuwaay yooyu. Mm-hmm. mais bu loolu lépp wéyee aussi mooy construction yi nga xam ne architecte def ci dugal loxoom mu am mu am plan beton ingénieur dugal ci loxoom loolu dafa yaatuwul lool li ko indi nag mooy. Euh, man am architecte yi nepp nekk ñu fépp man am seen liggéey ak seen njariñu liggéey. Mhm. même en dehors de ça sax xëy na kii tabax aussi da lay naan fay kii fay kii fay maçon fay bi. Euh, xaalis boobu yenn saa yi yenn saa yi loolu aussi dafa am problème mu communication xam nga parfois nga nga tabax defar plan bu baaxul. Mhm. boo xoolee li ngay taal ci ventilateur sur cinq six ans. man mhm. na am doon na rattrapé. communication communication bi dafa xaw a des ci foofu euh, kër am na nooy orienté bâtiment bi kër gi dina gën a sedd ba parfois doo soxla doo soxla du yenn jumtuwaay yi nga xam ne parce que kër du rek investissement de départ mais kër dafa laaj investissement sur toute la durée de la vie mhm. bu fekkee da nga tabax te dëppoowul defaraat bu ñëwee di nga ñàkkaat xaalis bu nga xam ne peut-être boo ko fayoon architecte bi du la ci fekk. donc man li ma gis mooy euh, architecte nekk na deux cent architectes bariwul ci ci dix-sept million de sénégalais. xaw na néew tuuti. Mhm. donc war nañ ko gën a yaatal mais aussi am ay professions intermédiaires maanaam ay licence professionnelle en architecture ñu peut-être dinañ mën a def parfois travail contrôle bi. Mhm. loolu lépp ay pexe la yu nga xam ne ñi ngi ciy réfléchir mais ci wàllu tëralin moom. wax dëgg yàlla bu weesoo plan yi nga xam ne gaawuñu mais ci wàllu ci wàllu règlement ak loi moom mbir yi xaw na leer ndax am na loi d'orientation sur l'architecture am na code de l'urbanisme mhm. bu ñuy réviser tout le temps pour mu gën a dëppook jamono boo xoolee code bu mujj bi yaatal na mbedd yi parce que gis nañ ne mbedd 6 mètres ku nekk da ngay daal di jël benn mètre bu oto yi bu kenn buñ taxawee ci ñaari boor boo xoolee quartier yu bees yi kenn dootu am foo jaar waaw donc loolu lépp dafa nekk ay ay ay mbir yu matale mais mhm. euh, pour dalal seen xel euh, état du Sénégal mi ngi mi ngi bëgg a taxawal lu ñuy tuddee une politique nationale d'urbanisation urbanisation. Mhm. bu nga de aménagement urbanisme architecture. Mhm. parce que xam nga a mhm. mais war cohérence buy tax. Euh, nous dal ni manam chaque semaine am balcon wala bâtiment bu du mais aussi nous comme comme nous pays yi nga ñuy ñu yittewoo comme temu tey bi temu tey bi xam nga dafay fexe ba di wax ne euh, naka la ñuy defee ay ay ay taxawaay ay liggéey mm-hmm. ba euh, mbirum dëkk ak dëkkuwaay nek lu jëppoo lu dëppoo ak euh, ak dend bi euh du bari ay émission mhm. xam nga lolu lu am solo la mais tologuñ fofu ñun dañu toll ci jamonoy bidonville jamonoy inondation jamonoy kër yu daanu te lolu war nañ ko dépasser euh ndax euh, wax deug yalla suñu dëkk yi ñi ngi bëgg yàgg mais daanel immeuble yi moom li indi moy bu yàgg ben niveau lañ daan tabax ni ngay tabaxee benn niveau bokk ak nag booy tabax ñett wala ñeenti niveau. dafa am yeneen i yeneen i tëralin yu war a taxaw yeneen i métiers yi war a taxaw. ba mhm. pare métiers yooyu aussi am na lu ci sooxe genn wàllu ñi ñi ñi yore métiers yooyu mënuñu liir même boo leen joxoon ay plan parfois. Ah, duñu ko mën a liir moo tax nag filière professionnelle yooyu. Mhm. dañu ko war a dañu war a orienté sunu sunu xale yi. ñu ci bari ba bu ñu amee bac. Mhm. def ñaari at wala bu ñu amee BFM def deux ans. boo bëggoon tey plombier bu mën a lire ab plan plomberie da nga war ba sonn bala nga koy jot. absolument donc loolu lépp ay liggéey la yu yaatu. Mhm. yu ñu war a taxawal ngir habitat ak urbanisme. ak aménagement nekk lu ñoŋ. nekk lu ñoŋ jërëjëf Mansour euh, Tall ñu ngi lay gërëm euh, ñu ngi lay gërëm ñu jeexal ak euh, madame Guèye madame Guèye kii monsieur Tall mu ngi koy wax léegi lépp a ngi fi wax dëgg neex yàlla ngir ñu tabax am dëkkuwaay bu yenu maanaa mais xëy na suivi bi. suivi bi également yakarna autorité autorités yi euh, war nañ ci gëna bayyi xel parce que dañuy am ay texte yu lèr mais parfois suivi bi application bi day causer problème. waaw lepp ngi fi kañ comme ni nga ko waxee ngi fi parce que limuy wax urbanisme architecture euh, yëpp ànd benn la habitat logement yëpp benn la. Hmm. affaire mbënd bi ñuy wax ni euh, inondation yi yooyu yëpp c'est dans le cadre urbain c'est dans le cadre urbain Yep, yëpp te man je trouve que c'est assez structuré Les ngi fi descos ngi protection civile on parle beaucoup de zéro bidonville. Mhm. les comment faire pour que tout ça là ñu communiquer correctement nous ñi comprendre. la surtout communication bi. communication bi modeste. des. je le parce que yenn saay sax di ngay gis koo xamante ni daf koy bëgg a def mais ci ku muy jublu la xamul. man léegi rek avant ngeen def seen émission bi recevoir naa fi koo xam ne ci waawoon pël la bëgg tabax benn dix sur quinze. Mhm. dafa ñëw ne ma sama sama dama bëgg tabax dix sur quinze noonu laay def ma expliquer ko yëpp ba pare baaxee ko ko. Mhm. mais je pense communication. xam nga xam nga sànq nag maa ngi koy wax monsieur Tall ñu ci bëri ñu ci bëri fay gi la ñuy ragal. moo tax man kii ñëwoon léegi dama ko ko baaxee. Mhm. expliquer ko yëpp fi muy jaar yëpp pour bañ am ay déconvenu. Mhm. parce que tam xaalis dafa dafa yombul am. nga am sa xaalis ba pare bëgg ci tabax lu baax mënoo ko ci am loolu tam dafa metti mhm. léegi nit ñi nan dem fi ñu war a dem. ñu conseiller leen boo amee jaaxle jaaxle balaa ngaa yegg fi ñuy àttee fi mbaxane di bañ da ngay uti ji avocat.

Mm. loolu c'est dommage. muy am dans dans un pays aussi. Euh, on peut pas on peut dire développé ñun on est assez développé mm-hmm. maintenant. Tes problèmes, bi sax on a tout on a tout. problème bi sax du du du tey la la la bâtiment yi tàmbalee tàmbalee mab yàgg nay màbb mais à chaque fois dañuy wax rek mu weesu ñu wat waaw mais dafa mel ni aussi mbënd mi ñuy wax ni bés bu ne chaque nawet ñu dellu si waat alors que fii macha allah yàlla may nañu. Mm-hmm. ah nit ñi jàng nañu quand même d'accord ingénieur y'angi, fi architecte yaa fi lepp ngi fi ba pare la même chose di nous dal tous les ans boo doon seetaat suñu bopp seet nu ñu koy organiser je pense que communication bi mo def d'accord jërëjëf nañ seet fu ñuy communiquer ak nuñ koy communiquer mhm. nit ñi comprendre yenn yi bañ fi amati d'accord jërëjëf euh, leer na ñu insister ci communication beeg sensibilisation bi si ko defee ñu gën a gindi askan wi ci njëriñal tabax ak la ca aju yépp ñu mën koy def bu ñu dee tabaxati xam naa ne Abdoulaye Diop moom ma nga ne ca euh, gannaaw dana ci gën a bàyyi xel bu dee tabax mbokki yi ngeen jëf gërëm Adja Maguette Ndiaye madame Guèye di architecte première femme architecte euh, fii ci Sénégal gërëm it euh, Mansour Tall di urbaniste enseignant chercheur fale ca université Amadou Mahtar Mbow mbokk yi ñu ngi leen di gërëm mu doon xibaar yi mi ngoom ci kaddu gi Abdoulaye Diop ci machine bi Maysa mbay ci xarala gi ñu ngi leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen asalaamaaleykum wa rahmatullah ci kalam euh, yëgle yëg yi di ngeen ci ànd ak Ami Ndaw